Samba ay wommat nga naar wommat wolof kenn féeratul yaay tiitaru baadoole yeeg ñi fi yaa Mustafa abnul Mustafa nul Mustafa yawmal qiyaamati rangaleenu fa ay midaay jooy say xibam ma ca ferloo nga seen rankoñ ya yaa mat làquwaay mag jàqatul ndaw tiitatul réew mépp bit ngir moslukat yi mosan nga leen yaa fi sa baay yaa dee ñabu ko bandahoo yaay jën wu rëy yaa dee muritan seen gaalu murid yi yaa ko yor yaa maa lay xamal sabxaal du fay saw nit du daay gaalu ko murid yi yaa ko yor yaa tee mu fay maa lay xamal sabxaal li kulli jën yëpp yurum antal imaadu li ahlina ya am wilaay ku la am gi ku la ñàkk jooy yàlla nañ la am yàgg na yëg bàyyi xarit yàgg na jaay ku la am gi ku la ñàkk jooy yàlla nañ la am ku la am du réew yal na mbaa laa ko ca baay yal nañ la ful te nga ful ful bi jaaxikum fuldureerew yal na mbaal a xut koraay waajoo safoone gën di sax dootunu soof ku ko weddi seet kase dootu gas tey ñi waraay yow balaay ku la diree ku la ñàkk ju yàlla nga amoon yàgg na yëg bàyyi xarit yàgg na jaay yaa nangu ngor yaa doon ngor yaa doon mbër yow yaari wet yi nga càllaloo dund ñu aay ngay Moustapha ma tànne Mbàkke di billi aat di ko billi aat ba ca balla cokket seen na jaay ngay Moustapha ma tànne kokki di billi aat di ko belliwaat ba ca balla cog kët sënu jaay yéen Moustapha nag tànne Mbàkke di di ko belliwaat ba ca balla cog jaay say waame taw na ci sow taw na ci penku bi ko may mu sarsi bitik gorow bi dugub sukaay doo coppi xool ngir kersa yow loo ngerti def say kaddu wecc na gommu góor ci yërmi daay xayaa ka yàqu bal wala yaa وياك رب كل فقين كن نفساي وأتى عمرك بزمانك ربنا بياك ربك لفق كن نغلاي وأتى عمرك بزمانك ربنا يتحمل دي سيارة فيك جوغي ميداي ويكال ودا وي مصطفى بن قيكو فل ما كوي ويل بني مصطفى دمو دي باي يا مرتضى من المرتضى من المرتضى هب للرضا ورضا خدم كل سباي يا رب بل على النبي محمد ما علي وخدمه وكاتباي يا رب بل على النبي محمد ما آله وأصحابه بالموجباي بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم توبا سلمي بمي ومني خمي نمبل جيت ننو داي ننو تمام